yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam xam ngeen ne mu ngi gane àdduna ci amul fiil ñu wax amul fiil ci li gën a wër mooy waxtu fajar ci fukki fan ak fukki guddi ak ñaar ci weeru gàmmu am na yeneen i wax waaye wax jooju mooy li gën a wóor gën a wér gaa yu baax itam yàgg nañ ko màggal jàpp na loolu mooy mooy mooy mooy mooy bisu juddu yonente bi alayhi salaam maanaam fukki fan ak fukki guddeeg ñaar ci weeru gàmmu wii nu ne ci la yonente bi alayhi salaam gane adduna ca fajar ga bañ bañ daataa ba ba fajar daataa fenk loolu gaa yu baax yi dañu wax ni mboolem boo seetee bërëb yi yàlla nangu ñaan dafa am ak laale ak yonente bi alayhi salaam xam ngeen fajar yàlla dafa wax ni fajar gu ne suñu borom day jege nit ñi di wax naan kuy ku am looy looy ñaan ma ma ma nangu ko kuy jégglu ma jéggal la ku amug wérat yi nga bëgg ma fajal la ko ma daal la koy fajal léegi mooy waxtu woowu loo fi ñaan yàlla yàlla yàlla def ko waxtu saxaar waxtu njël waxtu woowu nag ci la yonente bi alayhi salaam gane àdduna ci atum fiil atum fiil mooy at mi abraha demee ne day màbbi kaaba la bu ko defee itam am na yeneen wax waaye loolu mooy li gën a wóor diggante bi abraha doon màbbe kaaba gi xew-xew boobu ak fi yonte bi gane àdduna na abraha mi ngi ko defoon ci ci ci weeru muharram mooy weeru tamxarit ca la ko defoon donc ñoo anu sarwaan anu abraha itam mbiram day leeral itam daa am lu muy feeñal ci ne yonente bi mi ngi waaj a ñëw maanaam ci irhasaati yonente bi da bokk xam nga yonente bi kimaan yi xew ci moom dañ koy seetale ñetti xaaj li xew njëkk muy wàcc ak njëkk ñu ko yónni loolu irhasaat lañ ko tudde diir bi mu fi nekkee nag li xew ci ay xar baax mucjisa lañ ko tudde ginnaaw bu mu fi jógee nag mboolem lu xew ci ab jaam ci ñi nekk ci diine ji ci xar baax karaama lañ ko tudde te lépp di delluwaat ci yonte bi ndax koo xam dafa nekk ci lislaam di ci yëngatu ba yàlla feñal ci moom xar baax loolu day dellu ne yonte bal maanaam li mu nekk mooy dëgg diine joo xam ne amuti wàll yi loolu diine day maanaam yàlla bu fekkee léeg-léeg diine joo xam ne ñaari junni at yi gisoo yàlla tànn ca kenn def ko wàll yi kooku mooy diine jooju wéru yàlla ci moom andut ca diine jooje lislaam nag lii wane ne dëgg la loolu yéen suñ bi wax ci ci ci ci ci masaalikul jinaan mooy al awliyaaw adillatu tasxiix maanaam awliyaa yi loolu la ñuy firndeel moo tax awliyaaw yi karaama guñ def ci xar baax yonte bi lay dugg moo tax suñ bi wax ne kulliyatu mujizatun taaxarat maanaam léppam day dugg ci kiimaan yonte bi yi nga xam ne dañuy yeex a dikk moom suñ tubaab li mu def bu ko defee itam irhasaat yi mooy njëkk yonte bi yi xewoon bokk na ca mbirum ña yooyee loolu nag bu ma ko doon gàttal ndax waxtu yu ma leen mi ngi ñu xaw a jot mooy dafa am ay jamono dafa am ay jamono ki ñu wax Abraha moom moom moo nekkoon buurub xabasa wala boog ab ab éthiopien la bokk xabas xabas yi mooy ku dëkkoon Éthiopie Éthiopie bu njëkk liñ ko wax mooy mooy réew yi bokkut ak li ñuy wax Éthiopie tey gënoon naa yaatu loolu ay Sirek ay Soudan ba Soudan ak Kenya yooyu yëpp ci Éthiopie boobu la ñu doon wax ci la bokkal waaye nag ki ñuy wax Abraha moo nekkaloon buurub Éthiopie ca Yaman aywa Najaasi moo nekkoon buurub Éthiopie maanaam ki dëkk ki nekk buurub Éthiopie waxtu ndee tudd Najaasi nit ki nga xam ne fii ci réew mi ku nekk buur ci Kajoor waxtu daal dañ ko daa tudd lan dammeel ki nekk buur ca ci ci ci ca Saloum yaakaar naa lañu tudde teeñ am teeñ ma buurub buurub Bawol bokk maanaam daa am daa am buur yoo mi ngi mel ne Firawna Misra ku fa mas a nekk buur Firawna lañ la tuddee Najaasi yi nag mooy ku nekk buur ca Éthiopie moom nag la mu yilifoon yaman tey ji fi ñuy wax yaman tey ji da caa bokkoon kam fa tegoon nag ñu ko wax Abraha benn bis moom Abraha moom moo gis ni arab yi dañuy dem Màkka di fa aj ca Kaaba ga mu daal di tabax te xam nga aj dafa bari ay xewal mooy ñi fiy aj si dañuy jënd di fi bàyyi as weccat dëkk bi dox maanaam waa Màkka lenn rek lañ doon dunde mooy mooy mooy réussite aj aj googu ba léegi si loolu la ñuy dunde duñ bay duñ def dara boo leen xamee boo leen xamee nit dafa dëkk ba léegi si ay nit ñu tàyyel lañ ñoo xam ne daanaka su ne kenn ku ci liggéey am benn bitig boo dem fekk ba ku fa dëkk daanaka xanaa ñu néew wala xale yu ndaw waaye dañuy wut ñeneen nit dafa ñëw di leen liggéeyal ndax xéewal yi aj gi aj gi waxtu ne yow booy aj ci misaal rek da nga yóbbu ci misaal juróomi million ndax da nga fay jur lu mat ñaari million ak nangam yóbbu juróomi million te lépp da nga ko fa dépensé jënd ko mu def ko ci réew ma xéewal yooyu nag dafay ruus loolu yàgg naa am Abraha nag bi mu gisee ne waa Màkka am nañ xéewal ngir te Kaaba gee ko waral moom it mu daal di tabax église su boppam ndax moom chrétien la woon chrétien la woon foofu itam lu am solo am na fi mooy jëmmi réew yi ci des lu mel ne tey bux maanaam lu mel ne tey baytul muqaddas nga xam ne moo njëkkoon nekk xibla gi jullit yi moom ay ay jullit ñoo fa nekkoon mu ñu gëmoon yàlla rek muy ay chrétien yàlla dogal ay yéefar yu gëmul dara day musriko na ñëw génn leen fu muy buxtum buxtum sor fu ñuy wax buxtum sor ak ñeneen makka nag bokk na ci li li mu gën a ràññi ko mooy benn maanaam yéefar yi mos ñu faa jóg maanaam ñu gëmul dara ñoo fa mas di nekk maanaam chrétiens yi mos ñu faa ñëw nekk fa teewul nag maanaam chrétiens yi waxtu wu ne ñu ngi daa dox ci bëgg seen diina gën a yaatu fépp Abraha nag bi mu gisee lii nag na Kaaba ga demee ci ñoom mu ne na tabax église boo xam ni ñëpp dinañ bàyyi fee ñëw di ko di ko siyaal bi mu ko tabaxee nag ba àggal ca ci dëkk bi ñuy wax Sanaa te mi ngi fi ba léegi si jamono la benn waay ci arab yi bokk ci banu kinaan fa dégg ab la abraha la mu bëgg mooy bëgg na daal nit ñi au lieu que ñu dem Makka ñu ñëw ci dëkk mboobe Sanaa di fa di fa aj loola naqari ko mu dem def fa jëf ju ñaaw mooy daa bàyyi ba guddi mu fexe ba dugg ci biir église ba fa ca gën a sell muy xibla ga mu dem dox def def fa ay dem ginnaaw kër mu doxantu ko yàlla dogal ba pare nag yëmuti doxantu ko dafa da ko taxal ci biir église bépp bañ xëyee nag seen loolu mu naqar loolu Ibrahima Abraha bi mu ko gisee daal di am lu ko métti lool rawatina nag bi ñu ko xamalee ne ab arab moo ko def mu ne nag léegi du ma yem ci tabax église damay dem mab mabbu kaaba googee par benn daal di woo armem bépp nga xam ne matoon nañ juróom benn fukki junniy soldat surtout na alfa junni ne dañuy dem màbbu kaaba gi moom nag mu mu war mu war ci aw aw ñay an ci armée bi itam amoon na lu mat juróom-ñeenti ñay wala fukk ak ñett ci yenn wax yi yu ci nekkam loolu tax ñu koy wax ne amul fiil ndax ñay yi keroog lañ ko mos a gis mu ànd ci armée ñëw tesaar bi ñëwee itam ba jege màkka la tàmbali nag di waajal armée bi ne leen nag ba ba ngeen jekk ci dee ndax mën nañoo dem fekk leen ñu ñu bëgg ñoo xeex ak ñun te boo dañ ne dañuy xeex ak ñoom bi ñëwee ba ci waadi mu xasir ci diggante musdalifa ak minan ba ba ba ak nga xam ne ñu ngi jubloo màkk xam nga minan ak musdalifa yooyu ñoo jàkk ñoo màkk ñoo jàkkaar la ay kilomètres yi ñoo ñu dox seen diggante ay séenante la maanaam bi ñu nee ba toll foofu nag ci la gileem yës nangu nangu ñoo dox wuti kaaba ga muy def bu leen jëmalee ci geneen wet gi ñu nangoo dem waaye bu leen jëmalee wéru kaaba ga wetu kaaba ga ñu ñu yës duñ nangoo dem ci loolu nag ci la xew-xew yu bari am na ci waaye ci gàttal rek ndax ñoom Abraha dafa doyoon waar dañ doon def xar yi ñu romb ci mbedd mi dañ koy jàpp di ko xewloo buur yi noonu lañ doon doxe ñu jëlaale nag xar yi Abdul Muttalib mi nga xam ne mooy kilifa waa mag Abdul Muttalib ba mu liggéey ne Abraha jël lay xaram mu dem fa fam fam campé ne ko man kat samay xar ñoo ma yëkkati mu ne ko xanaa yow doo sëriñu daa dëkk ba maanaam doo borom dëkk ba mu ne ko axa kay mu ne ko yow daal mosuma gis kilifa gu gu doy waar ne yow yow maa ngi ñëw waaj a dal seen dëkk bi kay laaj xar Abdul Mutalib ne ko lil bayti rab yax mii maanaam néeg bi kaaba gee nga jëm daa am borom boo xam ne moom moo koy sàmmal boppam man nag sama xar yi maa ko moom léegi boo demee ci néeg ba da nga fa dajeeg borom loolu borom xam-xam yi rawatina mu tasawuf yi nga xam ne yow ay teggin seen diggante ak yonte bi dañ ciy tegtaloo ne kooku xam nga ne am na lu mu gëm ngëm la ne li lil bayti rabbun yax mii maanaam borom bu koy aar te waxut ay laata ak usa kooku day wax ne kooku ku gëmul yàlla la loolu day firndeel ne yonente bi ak ay waajuram ak la ko féete kaw lépp ci ngëm lañ nekkoon gu dëgër loolu mooy li wér ci lislaam na gis nañ fi ne ni jamono ji ay déggin yoo xam ni ay jaxasekat rek ñoo koy def yoo xam ni amuñu teggin diggante yonente bi di wax ci ay maamam ak i baayam naa dugg nañ sawara yu kenn xamul te loolu dara wér ci yëpp ñu gëmoon yàlla lañ abu abu ci gàttal rek abdul muttalib waa ji daal koy jox ay xaram ne ko nag nun dañu fi song dañuy song si dëkk bi yàlla dogal nag bi ñu ñëwee ba nekk bi ñu nekkee foofu diggante Minaan ak Musdalifa foofu di waaj a dugg Makka fële leen ñu jekk-jekk waa Makka moom dañoo génn dëkk ba ñoom ñëpp ndax bëgg ñoo fekkee maanaam xeexoo bi ci la yàlla yebal ay picc yoo xam dañoo jekkee gis ñu fees dell jaww ci mel ne taw buy ñëw picc mucc ne yor ñetti xeer benn ci sàll bi benn ñaari xeer yi mu mu mu mu ngëb ko ci ay ay ay ay ay loxo ay ay loxom wala ay tànkam picc yi itam dañoo wax ne ay dañoo xaw a nuróog ay xeet yi njugub njugub la ñuy xaw a nuróog waaye alxuraan bi dafa wax ne tayran ababila picc yi itam dañoo bari bari lool waaye dañuy def picc mu ci ne dañoo ba tolloog benn waaye rek daal di yàbbi sex maanaam xeer wi mu sex ci kaw waat xeer wi itam yàlla da ci def mu mel ne am njub bu ñëwee day bëtt bën bopp waa ji dugg ci jëmm ji bëtt ko ba àgg ca fas wam war wala ñewe wam war mu mu rayaale ko nga xam ne ay bomb la moom daanaka bi loolu xewee nag armée bi ñu bari dëpp daw waaye raj rajloo gi ñu rajloo itam ñu bari ci lañ faatu abraha itam ci la gaaw lijjanti moom it ba génn kii bi daw ba muy daw it yàlla dogal na teewul am lu ko ca toppe xeetu wéradi goo xam ni da ko tàmbali di ko jeexal ba mujj we- weyam yi di di rot di dagg yaram yi di dagg di rot ba mujj dañ dañ koy misaal mu mel ne mu mujj toll ni ak tuuj ngir ci tuuj tuuj tuuj tuuju ngir tuuj waaw yàlla da ko mbugale lool wéra di koo xam da koy jeexal di dagg yaram di ko mettital ci biir mettit mettit bu metti ba mujj mu mu yooye yooye yooyu ba kenn xamewu ko akub tuuj ba mujj nag dënd bi ci wow set mu abraha mu daal di faatu noonu la faatoo loolu nag bi mu ko defee mi ngi ko def ci weeru tamxarit xam nga tamxarit weeru màgg la ci topp muy weeru safar nga wax diggu gàmmo diggu gàmmo gàmmoo ci topp ci la yonte bi alayhi salaatu salaam feeñ nga xam ne diggante abraha moomu ak mbiram moomu ak ci yonte bi alayhi salaatu salaam gane àdduna juróom fukki fan du ko du ko du ko sori waaw juróom fukki fan du ko sori